Eh, Yen mbokk yi yeen suñu mbokk journalistes yi yu góor yi ak yu jigéen yi camarade secrétaire généraux yi ak militante ak militant boo xam ne teew nga fi ñun waa G7 ñoo tàmm ci bis bii jokkoo ak yéen waxtaan ci mbir yoo xam ne daf ñu soxol muy ab addu nak bo xamne dañ ko jëmele ci wa rew mi ak wa bitim rew waye ñi ngi ubbee suñu kaddu ci and ak suñu jangale kat yoy nga xamne ne nga génnee fasef ñen ñi ci centre de formation yi te mo mën ka tuddé rek muy ñu bees ñi nga xamne ñoo muy loo xam ne dañ ko ñaawlu ndax jàpp ab liggéeykat su bay waaram li si topp rek mooy mu jot koomam loolee mooy tax mu mën a ànd xelam pour mën a liggéey liggéey bu mucc ayib li jëm nag si waxtaan bi nga xam ne ñun ñoo ko daan sàkku loolee dakk ñu xeex ba mu am ñi ngi rafetlu waxtaan yi nga xam ne ñoo ko fa waxtaanee woon ne dañuy waxtaan ak ministre yi kenn ku nekk suñ su jigee ñu dajaloo waxtaan waxtaan boo xam ne day ëmb ñépp ngir ñu mën a saytu loolee nga xam ne moom lañ signé woon ak gouvernement bi fan la toll. waaye nag gis nañ ne si waxtaan boobu commencé waaye am nañ si luñ su naqari lañ si leen xaar aussi am na lu si des liñ si naqari nag mooy bi ñu waxtaanee ak ministre yi kenn ku nekk si poñ yi nga xam ne moo jëm si sa dep liñ daan xaar si ñoom. moy ñu jox ñu benn bataaxal boo xam ne day tënk waxtaan yi nga xam ne am nañ ko ak ministre yëpp ñi ngi daan xaar timit si ñoom ginnaaw protocole boobu suñu nattangoo inspecteur yi nga xam dañoo waxtaan ak wan gouvernement bi ba tënk ay poñ si kaw juboo ñu wax leen aussi loolee fan si toll gis nañ ne timit terrain yi nga xam ne dañ ko waxtaan woon ak ñoom boobu léegi toll na say at yu yàgg des na yu Kaolack des na bu Ziguinchor des na bu Déni Berem Ndaw jotaguñu këyit yi gis nañ tamit ne am na lu ñu waxtaanee woon ak ñoom si ñu fexe ba jàngalekat yi nga xam ne dañuy liggéey te du ñu mën a avancer. danga xam ne ñi leen seq ay ministère lañu ñu fexe ba dajale ci benn plateforme boo xam ne li nga xam ne mooy seen illa ñu dajale ko ba nga xam ne seen i mbir dootul yeex gis nañ ne loolu aussi wax dëgg yàlla def ñu ci benn jéego ñi nga xam ne dañ leen jëlan te doo ñu woon directement ay fonctionnaires ñu tuddee lañu corps émergent nga xam ne bu ñu masaan di cotiser

waaye gis nañ ne bu ñu ko joxee si loxo ndijoor dañ koy jëlee si loxo càmmoñ ñu gis na tamit jàngalekat yi nga xam ne dañuy góor góorlu malgré conditions yi nekk conditions yu xaw a euh, am jafe-jafe la waaye du tere dañuy gëm seen bopp jàng ba am seen lijaasa pour ñu jot si ji lijaasa yooyu nga xam ne moo leen di mën a permettre ñu mën a avancer tamit loolu aussi gis nañ ne dafa bi nous gis ne aussi président signé na décret bi nga permettre ñi nga Nous mbirum éducation physique ñu tuddee éducation physique ñu war a ci beneen corps bu ñu nous PCMEG ba décret ba dafa am benn décision boo xam ne moom koy jëmmal pour ñu mën ko appliquer loolee ba ma nga ñu gis ne DMC yi nga xam ne fonctionnaire yi lañ koy jagle pour ñu mën a di si wut kër wala di si wut équipement dañ ne woon dañ koy dénk banque yi dañuy waxtaan ak banque yi pour ñu xool ba nga xam ne comme nañ nga daan defee bu njëkk ba jàngalekat yi duñu fay li ñuy wax ay intérêt waaye loole bañ koy def daanaka ñun dañoo yëgal rek waaye mënuñu laa wax ni nii la demee wala naa la demee kon loolee jàpp nañ ne tamit lu ñu ñaawlu la li nga xam ne nag tamit suñu illa la te ñu si ñëwoon ko ak ñoom ñëpp xam nañ ne euh, boo bëggee jiitee euh, ay nit da nga war a am li ñuy wax taxawaay si nu ñuy gérer koom nu ñuy gérer ay doomu aadama ñu waxtaanee woon ko ak ñoom ban ne dañuy créer benn corps boo xam ne dañu koy tuddee ay administrateur scolaire te nga xam ne fépp si àdduna bu ma fa am ba léegi aussi loolu France dalu gëléem li nga xam ne nag mooy li nga xam ne tey mooy àlli collège ji te ñëpp di ko waxtaane te ñoom ñu nangu ko mooy jàpp nañ ne yemalewuñu liggéeykat yi surtout ñun ñi nga xam dañoo nekk si wàllu njàng mi ak njàngale mi soo ñu méngalee ak suñu nattangoo yi nga xam ne ñoo tolloo diplôme dañuy may mën a fay ñaar wala ñett président jëlan engagement ne loolu dina ko juyanti loolee ba léegi gis nañ ne dara avancé wu si loolu nag jàpp nañ ne ñun farata pour ñun te loolu tey moo indi yëngutu bi nga xam ne tey xëy na mi ngi am si école bi donc loolu moo tax ñi ngi wax président de la république moom mi nga xam ne moo jaboote ñëpp war a yemale ñëpp na xam ne ay doomu réew mi lañu te kenn mënta am ku nu gën parce que ñun ñooy sol xam-xam ñeneen yi ba ñu mën a matale ba ñu mën a am taxawaay ba mën a jëmale réew mi kanam kon nag ñu ngi koy ñaan mu geesuñu euh, ba mën a régler mbir moomu ba njàng mi dal xale yi jàng ñun ñi nga xam ne suñu illa mooy jàngale rek ñu mën a tamit ànd ak suñu xel jàngale ji parce que loolu rek lañu bëgg xamuñu leneen li si des am na ay bees bees yu ñëw parce que ñoom tax gouvernement bi nangu nañ ne ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu bokk si ñun te nekkuñu ay fonctionnaire tey soo leen di euh, nattalee ak ñeneen yi liggéey def daanaka day doon benn waaye yàlla dafay dafay mel melni yàlla ak yàlla yi gouvernement bi nag dafa ne woon dina si def ay yu mat wala ñu ngi si ay kuréel di waxtaan waaye waxtaan yooyee gis nañ téeméer bi loolu moo tax ñun ñi nga xam ne école rek la ñu bëgg école mooy suñu nga xale yi ñu bëgg parce que rek xam ñuy ñaan bu nañ ko woon muy ay waxtaan pour saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñun ñëpp xamal nañ ne ñoo ko nangoo woon que ne dañ koy ñi ngi ñaan gouvernement bi mu def si jéego lu dina si école bi dina wéy te yëngatu bi baaxut si école bi baaxut si réew mi baaxut si ñun baaxut si kenn loolu moo tax ñun waa G7 ñu organiser point de presse bi pour wax lii di am neexuñu def nañ suñ kemtalaay kàttan nag parce que booba ba léegi ñi ngi banque suñuy loxo di liggéey malgré que ni la ñu waxante woon nag ñoom defuñu ko te ñi ngi def leen loo xam ne lii moo ko ëpp farata euh, ñun nag li ñuy ñaan gouvernement bi mooy ñu continuer waxtaan am na jéego yu ñu ci def te nangu nañ ko mais jéego yooyu nga xam ne def nañ ko te li desandi ko pour li jëmale suñu waxtaan nañ suñu biir diisoo si suñu biir si ay bisi yi di ñëw pour seet loolee nga xam ne moom la ñuy laaj pour ñu juyanti ñu harmoniser suñu position suñu biir ba nga xam ne bu ñu dem demee suñu benn kàddu lay nekk ñu jébbal ko gouvernement bi nekk ñun nii la ñu gisee ñaareel bi mooy kon dina daje fii ci siège yu ak suñu nattangoo yeneen yi nga xam ne ñoom aussi jàngalekat lañ mais yàlla dafa defoon bi ñuy def élection ñun ñii ñu tànn ñu ne ñun ñoy doon ñi nga xamne ñoy représenter travailleurs yi waye ñun japp nañ ne ñom aussi si jur gi la si si lañu bok kon dañu wara waxtaan ak ñom inshallah rabbi tay fi si siège bi li ci dess moy ñu biral leen ñun école rek public rek lañu gëm ndax moy école yi ngeen ma si terme bi ki sa way jur amut yaa xam nappkat nga yaa baykat nga yaa xam loo mënti nekk sa doom dafa war a jàng pour bu ëllëgee mu am xam-xam manal boppam ba boole la ci yow kon nag école boobee ñun dañuy taxaw pour que na mu melan démb mu continuer mel ko former ay nit yoo xam ne fu ñu dem kenn du leen xeeb si xam-xam kenn du leen xeet si taxawaay ak si doxalin ak si jëfin yal na yàlla defal ñu école boobee kon ñi ngi wax gàccaangaalaama école Sénégal